parce que tey bu Ousmane Sonko taxawee ne yokk man yokkuma dund bi c'est une sorte de de communication bu nii mënuma ci dara. Mhm. non c'est pour dire que ci yéen la woon. baaxul moo tax ñu dindi ñu. Mhm. amatul bi dañ ko indi pour parce que moom woon na mhm. am na solution neewoon na au bout de deux mois day indi solution pour man tey jàpp naa ne tey tey gis nañ problème inondation yi tey jàpp naa inondation yi quatre-vingt pour cent def nañ ko mais il a un peu communiqué sur l'indiscipline des Sénégalais entre guillemets parce que man jàpp naa ne posture bu mu nekk. Mhm. moom en tant que premier ministre am na nu mu war a waxee nekkatul opposant mhm. parce que c'est un père de famille euh, tey moo yilif Sénégalais yëpp. tey am na loo xam ne warul wax Sénégalais dañoo réew. du loolu la ko war a def. mais c'est tamit le mal waroo pas à lui de le c'est pas à lui de le pointer du doigt. parce que c'est le premier ministre Sénégal day jiite am lu muy jiite bànqaasu réew la nekk. Mhm. dafa am image dafa am tribune xale ni koy waxee dafa mel ni tey ci olof. kenn du ne même même sëriñ sax génn na àdduna am na nu ñu koy ormal kenn du ne sëriñ bi dee na. Mhm. dafa am loo xam ne suñu langage yu réew la dafa am nu ñu koy ormalee même même euh, booy woo nit lekk sax doo ko ne lekk. Mhm. da nga koy ne kaa ñu xéwalu donc loolu la ñuy aadoo loolu la ñuy yaree ci ormal.